Fatima ñu bàyyi la nga tegtal ñu actualité people yi. nuyu Sow Poulo dama koy nuyuwaat xam nga dama koo bëgg. te dama lay namm daal. loolu réciproque yow bato dem bato costé. yaa ngi bëgg lu doy waar bato costé. bato yàlla léegi mu dem. Eh, source sûre. Eh, eh, boo sàggalee xale yaa ngi koy suspecté nii. est ce que boo sàggalee est ce que du si man est ce que du mën la ñu xaw a mais lu ñu xaw a liggéey. yow ku la lonkoo rek ah, dem. mais ma yéen amagul jëkkër dem ñoo leen andi sokki leen. bu leen di nopp ah, rek bu leen di dem yow. liggéeyuñu non mais lu ñàkk de dañ laa yàq xale yi danga am barke chaque jour mel ne dañ laa yàq Fatima ay danga am barke waaye damay ragal nga dégg célibataire sango rek mm. <laughs> téléspectateur u leeru jamono amati mbégte comme toujours rek di jàkkaarloo yi ci euh, petit déj mm-hmm. ñu ñëw tey rek ci actualité people bi ak euh, lu doy waar lu xew fële ca école jazz bu féetee fële ca Guédiawaye muy 90 euh, candidats yoo xam ni dañu doon def BFM Euh, ñoom ñëpp la ñu lu nu mel nag mu ngi ko mi ngi am fa ca Géejawaay école bi ñu duppee école jazz mu mel ni sax liy soobe boobu la mbir mooy euh, dañu euh, dañu dañu njoxtu ni que ay kaawu yi dafa am bari fa lool ba président jury bi décidé ñoom ñëpp mu ajourné leen lu ne mel doon lu doy waar lu fa xew tax na sax ba kii di euh, directeur école bi bind ab lettre de contestation kii di inspecteur academique bu pikin ak euh, bu Géejawaay mu doon lu doy waar lu am ci école te mu mel ni sax euh, boobu boobule établissement muy école jazz ndax tuy tur wu rëy la am nag dañ ci bañ a yegg moo tax ñu yem ci jaas bi rek ndax vraiment li ñu doxalee ak la ñu leen li ñu li seen école tudd bokkul ak euh, ci lu tegu ci ci yoon. Hmm. d'ailleurs sax euh, nee nañu bi ñuy def bac tamit dañoo nemmee woon ay kaaw tricherie yu bari lu nu mel sax moo gën a yokk a tax ñu ajourné leen ñoom 90 candidats yëpp muy lu doy waar Salma. ah nekk na lu doy waar vraiment parce que nombre boobu rëy na trop trop trop mais tricherie aussi fi mu dayoo bi nga xam ne am na ko Sénégal jamono ji. loolu mooy euh, vraiment faaw ñu jug si parce que mi bëgg ëpp loxo. ma ne ko loolu la xale yi tuddee maf ba tey ñu woy mm-hmm. ci euh, <laughs> euh, kii la di euh, artiste comédien ñu gën ko ñu xamee ko ci turu Moussa Seck alias Milkouzo mm-hmm. mu nekkoon ci série bi ñu naan Café avec génn gannaaw bi mu toogee ay euh, diir kenn déggu ko gisuñu ko ci média yeeg lu ni mel tax na waa suñu naataangoo yu IGFM dem euh, seeti ko sekk ak moom waxtaan mu ñëw ci àddu euh, ci mbiru épisode ci ci li mu dund maanaam génn duggam prison génnaat ak dund gu metti gi muy dund daanaka mi ngi këram nekkul ci dara te it am na ay projet adduna tamit jëmale si euh, série yi nga xam ne mu ngi koy gis léegi muy doxalin beeg comportement yi yenn acteur wala actrice di am muy lu doy waar loo xam ne moom euh, ñaawlu na ko te it euh, dolli na leen que nit ki booy joué da nga joué loo xam ne papa yaay ak doom bu ñu toogee dinañ ko mën a seetaan mu doon loo xam ne lu ko naqari la étant artiste comédien bu mu doon ñaawlu na boobule mbir te it bu sañoon ñu xoolaat taxawaayu boobule secteur. Mm-hmm. nekk na lu am solo ah. Mm-hmm. ñu koy ñaanal aussi réinsertion bu bu bu mucc ay bu ko defee rek mu mën a dellusiwaat. ba tey rek ñu wëy euh, Salma muy euh, Assane euh, Fall alias Azoula Bo génn semaine bi ñu génn xam naa ni weekend bu gudd moo tax ñëwuñu ci moom Azoula Bo génn di dànkaaf kii di Pape fay bu Arcos ak kii moom di duma Mouhamed Ndiaye ndax nee na fu ñu toog di wax wàllum homosexuel wàllum di ko ci dugal mhm. maanaam dafa am loo xam ne da daf ko joué muy théâtre bi mu bi ñu tubbee woon Azoula Bo mhm. mais li mu joué ak lañu koy jiñ bokkul mhm. ndax nee na coach bàyyi waay. Adja <laughs> euh, bo li mu rôle bi mu joué rôle maanaam góor góor jigéen ak góoru mbootaay bokkul moom góoru mbootaay la doon joué maanaam góor boo xam ne dafa yaru ci biiri jigéen am comportement jigéen di tàccoo ko yu nu mel loolu bu mu tax moom ŋàññi na ko fa sax ndax nee na Pape Faye xamul dara ndax bu xamoon dara dina mën a distinguer lii di euh, góor jigéen ak góoru mbootaay mhm. nee na nee na it nag euh, bu ñu ko buggul déggati turam ci li nga xam ne mooy wàllum ay homosexuel ak yenn affaires yi. Mm. ndax neexu ko toog na ci rukkam lu ëpp ay at. génnul euh, génnul duggul ci daraay dara kon bu mm-hmm. kenn dugg ci ay mbiram wala di ko sosal loo xam ne nekku ci mm-hmm. gan ñaawlu na ko génn na ñi ñaa ngi ci wax te it euh, ci dëgg ci neen ci li mu wax nee ci dëggam la nekk ndax ñoom ñiy wax loolu bu ñu xamoon dara duñu ñu euh, accentué wu toujours ci wàllum góor jigéen bi ñu koy wax góoru mm-hmm. mbootaay la jël góor jigéen encore une fois waa mais mm. mm. xam nga Euh, <laughs> loolu mu def foofu ah euh, euh, Pape Faye li mu ko wax man de damay d'accord ak Pape Faye rôle bi rôle bi mu joué ni ko joué <coughs> dégg nga geste yi mu doon def yooyu yëpp loolu yëfu góor jigéen la bon c'est que nag am na rôle yoo xam ne boo ko joué ci film ak ci film il faut nga assumer da ngay dem léegi yooyu da ngay assumer de. tey jii bu ñu la joué loo rôle bi bu ëllëgee. est-ce que du du xeex góor jigéen moom rôle am. je me dis que dañu cerner wul bu baax da doon xeex góor jigéen. parce que day wa day joxe leçon comme am na ay góor yoo xam dañuy yaroo si kër. Mm. mu bëri ay jigéen. je suis d'accord boo moytu kooku day efféminé ba bu màggee dinañ ko jiiñ góor jigéen. d'accord alors que nekku si. donc rôle boobu la doon joué c'est différent de nekk góor jigéen. Euh, ku joué film da ngay joué pour. sensibiliser contre benn euh, fait. loolu la mhm. loolu la mhm. kuy joué film yi mhm. da gis ko loo ma tax ñu bari bu ñuy euh, euh, comme par exemple euh, xaw ma lan infidèle ñi koy joue di joué rôle yooyu dégg nga dañuy joué pour wan que société bi am na fi lii man defe naa loolu la waaw dégg waaye tamit nit kii da ngay assumer boo leen ba nangu rôle bi bu ëllëgee na nga taw yow nga ne ah parce que lu nekk mën na ci mais moom nee na nee na dañu ko waroon décorer ci li mu joué Mhm. ndax nee na dañu ko waroon décorer ndax moom dafa tay la laay fam def lu nekk jouer boobu le ndax ku nekk duñ ko sant ku nekk mu def ko duñu ko sant ku nekk mu def ko te moom euh, bu doon moom Pape Faye moom xam na dara dafa mhm. waroon décorer. Mhm. ndax li mu joué doo ko sant kenn ba mu def ko te leçon la ci doon euh, da doon jàngale. et puis il a précisé que après yu bëri. Mhm. Ah, par chaque 6 mois mu gagné 25 millions. des voyages passeport diplomatique. mais il a pas voulu parce que ba mu joué rôle boobu yeete moo ko taxoon a jug mais pas pour am ci ay yoo xamante ne amaana dina ko détourner ci objectif am. Sénégal sax Salma nag dañuy dañuy. dañuy jaawale deux choses dañuy jaawale peut-être euh, góor jigéen terme homosexuel mhm. Mhm. ak góoru mbootaay fii Sénégal boo efféminé peut-être nekk góoru mbootaay di fréquenter jigéen ñi ñu ne góor jigéen la mhm. alors du loolu en fait mën nga bañ a sax fréquenter jigéen ñi Aïcha sa biir kër mën na bëri jigéen yow nga efféminé doo ko efféminé bon ñu may ma yow may ma fañ la may yow mii tey bu ma ñëwee fii wal fa di damm ay loxo di def nii di def nii loo may teg loo may wax. du ma la wax góor jigéen dama naan na nga efféminé. dégg nga mooy wax. du mhm. ma la jàppee góor jigéen parce que fekk la ci kaw góor. ngay def acte kon loolu la loolu la azulabo loolu la azulabo pour ku ci am sa doom. waaw kër ga bari na ay jigéen. jigéen góor la. jël ko nga ber ko. wala nga yar ko de sorte que ci witu jigéen ñi kii jógee ci waaye Aliou Sow wax avant avant ñoo jàll. mais est-ce que est-ce que est-ce que bon je ne sais pas peut-être pas Salma et les autres parce que vous pourriez être un peu plus jeune. Mm-hmm. mais il y il y a vingt ans vingt cinq il y a vingt ans il y a trente ans même ah alors ñun ay bay booy la ñu woon xam nga la dizaine passée dañu dañu dañu dañ dañ dama daan dégg ay sama ay tante yi naan ay eh, yow yow yow yow yow yow sabar ba yow diw toj na ko. Mm-hmm. ñu ne diw kan la. man mosuma ko gis xaw ma nu mu mel. Mhm. ñu ne ñu ne ay eh, ma mañankase yi toj toj na mañankase yi. Mhm. <laughs> toj na toj na toj na toj na. toj na mbaxal ma ay eh, yow ay eh, ay yow kii ba machin di wax foofu foofu oh là là boo gisee col bi mu solo. Mhm. ak yooyu et cetera lii lii ay ndaw jàmm la kooku ñu ne ndax góor la. non affaire yooyu man je je l'entendais quand j'étais petit. xaw ngi bitim réew wala yooyu. mais pour wax la ni rek affaire góor jigéen ak ñi doon efféminé di dugg nekk góor di dugg ci biir ay sabar di jigéen. loolu am na fi ba pare góor jigéen am góor jigéen ya ya góor jigéen ak góor bu efféminé yàgg na fi man am na ay ay yoo xam ne bëgguma tudd seen tur mm-hmm. dama leen daan gis ñu ñu ñu ñu ñuy ñuy nekk Air Afrique Air Afrique bu yàgg ba. Mhm. ci ci avion bi fekk ñun ñu doon nekk xale ni dem di ñëw Dakar di ñëw vacances ak yooyu. Mhm. xam nga dama daan gis ñuy def seen aller retour yooyu ak ak ci biir compagnie bi. Mhm. ak am fa ay xarit ak yu demee noonu ñu bari ñoo xam ne ñëwuma tudd seen tur je les connais. te pourtant ay ay ay ay amoon ay jabar lañu. ak yooyu mais mais mais mais ay kii lañu woon ay ay ay ay góor jigéen lañu woon. Eh, xam nga mais mais da ngay gis Cheikh mais dañ doon dem. dañu doon dem bitim réew di def seen business ak mm-hmm. yooyu mais euh, ay góor jigéen la ñu mais góor jigéen yàgg na fi maintenant maintenant est-ce que maintenant influence bi dafa est-ce que ku efféminé rek góor jigéen góor jigéen moi je ne pense pas efféminé am na ñoo xam dañuy judd salma doguma leen mm-hmm. ah, juste pour terminer dañuy judd mais seen yaram voilà loolu mais mais je je génétiquement génétiquement parce que déformation la góor jigéen dëgg góor jigéen vrai. Mm-hmm. góor jigéen vrai anomalie la. Mm-hmm. dañu am dañu problème ci seen yaram. Mm. loolu loolu gènes yi gène gène gène féminine yi gène yi quoi jigéen bi. mooy moo ëpp doole bu bu bi. Mm-hmm. am na ay piqûres yoo xam ne boo ko defee sax yow ci sa yaram rek pour pour te dire nii rek euh, de manière euh, kii ci wàllu médical. et eh ben gis sa yaram day gën a jigéen am na góor yoo xam ne bu ñu bëggoon ween tey jii nii tout de boo xam am na defal ci seen biir en tout cas donc juste pour dire que ne mm-hmm. ni jigéen euh, góor Euh, mun na juddu am ay am ay ay ay jeunes jigéen ba pare sax xel bi sax commencé mu mu mu bañ mu bañ ñu bàyyi si xel ak ak lu ci lu ci mënti am rek Salma moom daal nee na bu ñu ko waxati góor jigéen mhm. waaw bugg ko bu leen ko non loolu moom wax dëgg yàlla waruñu ko voilà parce que du question dafa jouer mhm. rôle bi rek mhm. que loolu la waaw te loolu la non non ñu ko wax góor jigéen la Aïcha Fatima ba tey rek Salma alxames bi ñu génn ñu mayee kii di Amina Poté ñu gën ko mu nekk ab animatrice bu nekk fële sa ca télévision Futur Média mu doon euh, mariage boo xam ne nemmeeku nañ ci ay euh, yu neex ay puukareeg yu nu mel mu doon ñetteelu sëyam moom sax génn na ci ay ay réaction bi suñu euh, naataango Dakar Buzz yi am mu ngi kontaan ci sëy bi ba pare di ñaan yàlla mu doon dernière sëyam ndax nit ku nekk ci loo war a am rek di ko am. Mm-hmm. sant na yàlla te it euh, def na xewam bu neex ñu nemmee ko ci sax ay. Euh, artiste ak ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci wàllum showbiz beeg ay naataangoom ñëpp jege si woon mu doon mariage bu doon bu bu bu royal daal moom noonu lañ ko mën a dippee mariage bu bu rëy bu grandiose. mu mm-hmm. ngi noonu di ko souhaiter heureux ménage comme ni nga ko waxee. Mm-hmm. Euh, comme ni moom aussi ni mu ko waxee say bakkan la rek. Mm-hmm. ko yàlla yemale dafay yem mais euh, ñu koy ñaanal heureux ménage te comme ni nga ko ñaanee aussi. mu nekk dernier sëyam yaakaar naa moom ba mu juddoo suñu borom ba <coughs> bañ ne ku bëgg. ñoo yëkkati yëpp allah kulli aad dañuy doon sa borom bi waaye dañuy ñaan borom bi kii rek ni ko moom li wax bi noonu bi naan bi muy ñaan yàlla yàlla mu doon dernier sëyam mhm. euh, dama fàttaliku sama maam bu daan wax ni euh, jigéen jombul euh, benn laal mhm. sama maam Aw Sow moo ko daan wax mhm. mu ne jigéen jombul benn laal Mm-hmm. loolu wax naa ne wax boobu dissertation la te war nañ ko mën a tekk ci lu bari mm-hmm. donc c'est tout à fait normal mooy li nga mooy li nga mm-hmm. wax nii rek kon kon yàlla na la yàlla sàmm yow Amina sëy daal sëy la bu tuddee ni yow ci sa euh, kii di nga sëy ak ñeent euh, euh, go ak ñeenti góor yu bokkul da nga di tas de par force day am. day am mm-hmm. ñu de wax euroménage ñu ko war a juddoo si dañ koy ñaanal mm-hmm. dernier sëy voilà na nekk euh, mm-hmm. euh, toog fa. sëy sëy bu baax. jaajëf waay et puis qu'elle soit heureuse aussi. waaye c'est important de bonheur Amina Poté. Euh, tellement ñu terminé ak euh, kii di Ouzin Keita moom borom Vuruj Varaj mm. dañu ko agressé jam ko ay jamante yu metti euh, ci biir këram ki ki ko ko def sax am di jàmmam la nekkoon daanaka waaye moom Ouzin Keita yaakaarool ni woon waa ji dina ko def yooyu yooyu lay ñaawteef mm. jam na ko def na ko lu metti mu joojoo yu metti moom tamit te it mu mel ni porté na plainte bu ñu sukkandikoo ci Sénégal mm. te nee boobu le mbir da koy toog ba mu sës mu doon lu ko metti jooy jooy yu metti vraiment Ouzin jooy na. Mhm. te commentaire yeeg lu nekk mi ñu ngi ko koy wax vraiment yërëm nañ ko ci benn côté mais teewul ñenn ñaa ngi koy wax dëgg mu mel ni moom war na du ñu ne war na seetaan entourage am mais li ko dal ci entourage moom la la jóge mhm. ndax euh, karam gi néewi na. Mhm. Ouzin jooy na. nekk na ci mi ngi ci guddi goo xam ne ba séddagul te fas yéene na topp boobu leen mbir ba mm-hmm. fi ma xam benn. Mm. Salma. en tout yéeme na lool mm. après aussi ñu ngi naan est-ce du bad buzz boo xam ne aussi moo ko moo ko créé rek parce aussi ñoom gis nañ leen parfois. Mm-hmm. bu ñu faral di def dañuy andi loolu. Mm-hmm. bu fekkee plainte bi déposé na ko bu fekkee dëgg la dinañ si xam dara. waaw xanaa jooyul jooy de sañul. wax lu dul kii mais bon parce que c'est des bons comédiens aussi mais mais mais loolu jooy bi mun na nekk mais mun na nekk aussi dëgg dëgg aussi euh, te bu fekkee ne dëgg la wax dëgg yàlla loolu ils ont pas le droit ak nu ñu mënti mel nga bëgg ko nga bañ ko nit kenn warul koo agressé comme ça bu fekkee nañ ko agressé à tort vraiment te porté na plainte na na na yoon doxal mbir mi ba def liggéeyam ba ba dégg nga maam euh, doomu jàmbur bi parce que doomu jàmbur aussi am nañu ko bëgg yéen bu fekkee am nañu ko bañ aussi am nañu ko bëgg dañu ko bëgg sax dégg nga maam ñi ko def loolu ñu mën leen ñu mën leen sanctionner sévèrement parce que on n'a pas le

leen benn yoon euh, rassurez-vous ñuy gis commentaire yi yéen a ngi naan que nañuy xool commentaire it et ñu ngi koy xool ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax di leen bëggee ci teewlu bi nga xam ne yéen a ngi koy teewlu di jaajëfal euh, tata Adjaratou Penda Diallo Gueye la force tranquille ah ak sama xarit bi nga xam ne tey jii moo faree ci régie ba ah donc euh, coach Modou non pas tey du Modou fal ah euh, Modou Fall la. Modou Fall waaw Modou Fall. waaw Fall moo liggéey liggéey bu rafet bi. waaw d'accord Modou Fall moo liggéey nga ba heure bi ci temps. voilà maa ngi lay jaajëfal Modou Fall. moo def fi dara. Modou Fall moo liggéey lii Penda moo wax wax Modou Fall nee na defoo fi dara tey. non non non non foofu d'accord ak Penda. Modou Fall mooy liggéey liggéey kat la. tata Penda Modou Fall sama doomu baay. man nag lu Penda wax laay gëm. waaw. Ah, day d'accord ak Penda. Penda Diallo wax non non d'accord ak image image leer yi. daa Penda nee moo fi nekk wala yaa fi nekk. Ah? taxawaay jottalikat laa fi taxawee nee na. yaa fi nekk wala moo fi nekk man man xam nga lan laa xam. Ah. man dama ne pour la première fois d'accord ma ak moom. ma ne yow yow li nga wax looloo am lenn waroon la leer. image yi nu mu leeree tey. ak liggéey ak liggéey bi nu mu setee. ak ak heure bi heure bi ak heure bi ak heure bi ak heure bi c'est parce que Modou Fall yaa fi nekk. loolee ndeyale jawul baaxul. ñu leen di jaajëfal bu baax. Modou Fall 1 pour cent de remerciement dañ la defal ah. déedéet déedéet